waroon ko amal bés bi bu député yu nekk ci yeewi askan wi ji mujj nañ ko tere luñ ko yi mbëbëtu bi a am ci buntu assemblée nationale lu ko taxaw na jóg bu ñu duppee antidémocratique bu parlement pilier amul fenn foo xam ne teg nañ ko parce que tey suñu demee ba ñu ne euh, euh, suñu xoolee que ni risque retour à l'ordre public parce que yaakaar naa ne même fekkoon 165 députés yëpp ñoo la yow def si biir assemblée nationale yi vraiment foofu benn désordre mu mu fa ñu tere aussi nit ñi bàggee seen occupation ku bugg a def liggéey liggéey ku bugg a def commerce nga def commerce donc wax jo boo xam ni. vraiment taxaw fenn. ci mbir yi ñuy ñaawlu bu baax bokk na ci ñàkkum contrôle action gouvernementale bi loolee ginnaaw rek bi ñu amalee boobaak léegi votu projet de loi finance yu 2023 yi lee. mu la ñu assemblée nationale pour que weer bu dee bu nekk ñu dem jël suñu indemnité jël suñuy carburant ba pare su commission pare session pare la tëdd nelaw parce que nag. fii man ñi ma gis ñëpp député Yewwi Askan Wi ku nekk am na ci loolu yow ñi ay fonctionnaire lañu woon ñi ngi nekkoon seen activité di daan seen doole donc tey suñu ñëwee assemblée nationale je pense que dafa am ñu bëgg nag opinion nationale ak internationale xam li ni mel groupe parlementaire bu yeewee askan wi di xam ne nag déposé na ci table président assemblée nationale fukk ak juróom-ñeenti question écrite ñaar fukk ak ñaar question orale ak ñetti question actualité waaye nag ci loolee yëpp ñeenti tontu rek lañu am. tukkee ci gouvernement bilee loolee ginnaaw nag bureau bu assemblée nationale nga xamante ne président assemblée nationale da koy convoqué saa su fekkee ne rek soxal na mbiru agenda bu majorité présidentielle bilee